lenn oustaz alors ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy troisième question bi oustaz kii nag moom dafay laaj mu ne ndax am na jigéen ñu ñu takk ci lislaam ndax dañuy faral di dégg senegal ñu naan kii jigu la kii seen biddiw àndut <laughs> soo ko takkee da ngay dellu ginnaaw yooyu dañ koy faral di dégg muy laaj ah. ci ndax am na am na ñu ko gëm de xam nga àddina moom dooni dara amul hmm. waaye daal am na ñu ko gëm waaye bu dee alquran parce que man su may wax li alquran wax ak li yonent bi wax loolu laay wax après ni ko aada gisee ni ko cosaan gisee ak ni ko seen waa famille gisee loolu intéressé wu ma man li alquran wax laay wax mhm. alquran ba alquran daj amul fu yàlla waxee ni jigéen ji boo ko takkee sa wërsëg sa tëju ay biddiwu yeeg yooyu fu mu jóge amul ci alxuraan nekku ci kii boo ko takkee da ngay dellu gannaaw mën maanaam mën na nekk xam-xam boo xam ni ci yeneeni téere nga koy gis mhm. par exemple ñu jàng ilmul asraar ñoom xëy na mën nañ ni kii biddiwam ndox la kii su kii suuf la asa kii euh, euh, ngelaw la kii safara la mais dama la ni loolu bu dee alquran nekkul ci alquran alquran indiwul biddiw alquran indiwul biddiwu safara indiwul biddiwu ngelaw baqara ba minal jinnati wan naas 114 saar ñoo ci nekk ci mbaaxu yàlla nag man mii di wax fexe naa ba 114 saar yépp mokkal naa ko mais jànguma ci man foo xam ne yàlla dani ndaw si boo ko takkee dellu ginnaaw Sénégal nag dañoo mën a gaafal nit. ah waaw oustaz yooyu bari na fi de. da nopp sa gel ba takk ko ñu naan la moo la mag. nit du takk ko ku ko mag. waa ak ay day coos ak. ñii xamuñu ndaw si mosuñoo gis carte d'identité naan la tëstanam yii ku ko xool xam ne mag la ñii naan day coos tànk bi. Hmm. ñii naan day xapp xappal waaw ñii naan gémmiñ gi daa ubbeeku lu yaatu. waaw ñii naan ay bët mooy wërsëg. senegal boo rëyee bët ñu ne da am wërsëg ma ne bul ah. wànneen de. <laughs> bu dee ku rëy bët ñu ne daa am wërsëg ma ne la bul wànneen te mukk façon aada yooyu dafa bari ci senegal barki démb am na ku may laaj naan ma oustaz damay laaj waaw parce que damaa dégg ñu ni boo fasee jigéen mu ëmb bu dee doom ji góor la sëy bi tasul ma ne ko bu dee ñaari seex nag góor ak jigéen kon xanaa. xëy <laughs> taxaw ñu dégg am na. Pape Samb dégg nga boobu jigéen jigéen ji ëmb ñu ne li mu ëmb bu nekkee góor sëy bi tasul léegi mu am ñaari seex <laughs> góor ak jigéen. ah ah day ñibbi seen kër 15 jours ñëwaat. gën jël wàllam. diina ji du ay xalaat nag du ay aada. nañu ci bàyyi xel. yenn saa yi dogal day tombe dangay takk jigéen fekk yàlla namm na ni ci at moomu ci la say jafe-jafe di am. Mhm. léegi nag bu ko defee famille bi yëpp mobilisé wu ba nga duggee ci diw nga commencé am ay difficulté mhm. ñu gëm loo la ko nga nekk dof mhm. commencé wàññi ci sa jabar boo amoon ci moom yenn cofeel yi da ngay wàññi ci moom parce que da ngay jàpp ni natt yi la dal moom moo la ko teg mhm. nga dem ci sëriñ si ñeme yàlla ñu xool naan la <laughs> ki nga mujjee takk moo ciy kan <laughs> kan kooku mooy Khady Diop <laughs> Khady Diop mi xanaa bi nga koy takk laajte woo sa jafe-jafe yi moo la ko teg ah. allahu akbar yàlla bindul nit kuy lor moloomu nitam nañu ci bàyyi xel yàlla bindul nit kuy lor moroomu nitam jafe-jafe yenn saa dafay daje. Mhm. noonu la bànneex ak mbégte it di daje. dangay takk jigéen fekk at moomu la yàlla namm teraanga ji nga war a am ci at moomu nga koy am nga takk ndaw si janvier février xéewal yi ñëwandoo ndaw si commencé <laughs> maa la jig de <laughs> waaw lii lépp bi ma ñëwee laa ko indaale. yow itam nga nekk dof naan ko jigéen di woo ma bébé xam nga yow jigéen woo ma bébé parce que yow non jigéen di franchement parce que tamit y a des gens yoo xam ni bon kii jigéen diw ma. maman kii yaa ngi gis bon bi ma ko takkee ci la santé nii projet yi en janvier genre genre da ngaa dof du jigéen di yàlla moo ko tombale foofu. Mhm. nattu dana daje ak sa soxna. Mhm. bànneex dana daje ak sa soxna. Mhm. su boobaa bul kalaame kenn du ndaw see la jik du kii moo la jigadi sunu borom moo séddalee addinaam noonu lu jot yomb te ku nekk lii sa wërsëg di nga ci jot balaa ngaa faatu. incha allah. Mhm. alors je pense que leer na Oustaz euh, li moo nekkoon yi nga xamante ne moom mooy question yi.